Euh, mbokku internet Allô Sénégal jaa jëf jëf nuyooti nañ leen ni ñu nuyoo buur tey nag boo leen gisee suñu tànk yi nakar ak tiis la euh, gi nga xam ne rek amoon na fi drame bi nga xam ni ñun ñëpp tegoon nañ ci suñu bët muy ki nga xam ni dañ koo lakkoon rek ba mu defub dóom ñun nag teewoon nañ fi ngir indi leen lépp luy information waaye nag boobee xamuñu woon ndax góor la xamuñu woon ndax jigéen la xamuñu woon ndax mag la wala ndaw tey nag ñu toog ak ki nga xamante ne mooy El Hadj nekk ab euh, communicateur traditionnel waaye it euh, nekk ci site boobu nga xam ni mu ngi wuyoo ci Ndokh TV moom lañ toogal mu am ay information yoo xam ni dina ko partage ak yéen mbokku internet wàllu Sénégal waaye it dina ci gindi ñu bëri ndax gisoon nañu ñaan yi gisoon nañu yërmande gi nga xam ni amoon nañ ko ci kii wuy ju moom ñu koy ñaanalaat bu baax duñu def rek lu dul bàyyi El Hadj mu nuyoon teg yéen ne tuuti ñu daal di ci waxtaan bi El Hadj nuyu naa la. Euh, jërëjëf euh, soxna si maa ngi lay nuyu bu baax. Mm-hmm. di kontaan ci dalal bi ngeen ma dalal Allô Sénégal. Mm-hmm. vraiment di site boo xamante ni keroog nañu mm-hmm. daje ci euh, li xewoon ci. Tivaouane Tivaouane si hôpital Mame Abdou. maa ngi lay tooñ keroog sax naan wan ma chaîne bi quoi. ma xool ba xam am na doole mais effectivement Serigne. Euh, chaîne boobu mu ñëpp doole ah <laughs> Sénégal du moromu maam ndox <laughs> mais maa ngi ziar euh, mhm. mbokki internet yi nga xam dañuy suivre allo Sénégal maa ngi xool chaîne bi sax. Mhm. mais vraiment ay jàmbaar ngeen. Mhm. waaw liggéey bi nice na. sérieusement yal na yàlla yokk. amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi amiin. ayca tey bu ñu doon euh, wax El Hadj tey kañ nga ñuy wax kan mooy El Hadj tey. El Hadj Mbengue mm, benn ndongo daara la boo xam ni. ci daara laa juddoo daara sëriñ Babacar si fa laa juddoo bokk naa pot dem yalwaani pour mën a añ euh, jàng naa école mais CM2 laa yam fi ni laari di bàyyee <laughs> mais bi ma bàyyee ma dem jàngi métier métier tailleur mhm. bu mokkal ko lool mhm. ñi ma xam te xam ma bu dëggantaan même mm-hmm. Thiès googu bari fa ñu ma xam bu baax a baax ci ñaw mm-hmm. Tivaouane am na fi ay jamono yoo xamante nii moom ku élage mbéy mi jóg ñawalul pour mm-hmm. yow solo solo am na solo même Thiès noonu la demee woon dama daan am ay clients yu bari Thiès Dakar bon par la suite nag ma amoon benn philosophie mooy su ma demee ba am quarante cinq ans damay bàyyi ñaw bi ma amee quarante cinq ans fekk na boobu sax liggéey baa ngi dox normal mais comme comme mhm. euh, principe la woon bi mhm. ma amee quarante cinq ans rek ma bàyyi ñoom nit ñi sax dañ doon wax nan dañ maa liggéey ak mhm. sama ñoom yaay ak ñoom di dem ci ay sëriñ di ma ñaanal fekk boobu principe la parce que bëgguma nekk tailleur ou pas bëgguma nekk tailleur ou pas bëgguma nekk tailleur ou pas bi ma amee quarante cinq ans ma bàyyi mais El Hadj Mbengue Diop daal loo ci mënti dégg taalibi Seydil Hadji Malick bu yor ci daara jàng école yom sem 2 ba pare may dëgg la xale am na solo di di ko daggati di ñëw a solo bu baax a baax. Euh, ñu daal dellu si waat ci drame bi xam ne rek euh, am na fii fii ci Tivaouane xewee fii ñëpp teg ci seen gët waaye it ko di gisul rek euh, dégg nga ko tey drame boobu noonu buñ ci doon dikkaatal lan waaw xam nga neexul. Mhm. ci dëkk bu mel ni dëkk Seydil Hadj Malick ak Seydil Hadj Malick ni mu sonnee. Mhm. ci dëkk bi bi mu fi ñëw. Mhm. juróomi quartier rek la fi fekkoon. Mm-hmm. Kuli jaan Jaalo ngi Ngijaan ko njàkk foo ñu ndut juróomi quartier la fi fekk mm-hmm. quartier bu ne mu fekk fa bon benn sëriñ mm-hmm. sëriñ ba contrôle Alaaji Maalik mais ci sagesse am ak diplomatie moom Seydi El Hadji Malick may ko mu comporté waa ci yar ci teggin ak ci ak ci ak ci sagesse ba sëriñ yooyu kenn ku ci ne contre nga nga jël sa der ñëw ci El Hadji Malick ni ko bis ni ki tey dama bëgg nga may ma salaatul fatiha topp naa ci sa ginnaaw ñëw fekk fi ay ceddoo mm-hmm. ku ne xam na ceddoo li muy signifié mm-hmm. naan sàngara mm-hmm. nangu jabaru jàmbur ëpp la doole nangu sa alal nga bay ba ba ba tool bi ñor mu jël ko yooyu la fi alaaji Malick fekk bi mu ñëwee mu xeex fi xeex bu metti ba jële fi yooyu suñu demee ba ba 2024 parce que alaaji Malick mu ngi tàbbi si fii 1894 dindi fi yooyu ba ku bëggati lu baax ku jurati lu doom ju baax bëgg mhm. mu baax Tiwaawan nga ko indi ñu dem ba 2024 dram yu mel nii di fi am ça veut dire que ni jamono dafa yàqu commencé wul depuis 2023 parce que xam nga mhm. ñun de bi ñu nekk booy mhm. daawuñu gis deret mais fan yële yëgoon nga fi drame bi fi amoon xale bu jigéen bi ñu jëloon yóbbu ko ba ci àll bi rey ko ba pare taal ko loolu yëgoon nga ko yooyu nag moom mhm. dafa commencé di bari ci suñu tund wii mhm. mën naa wax sax ni ñi koy def mhm. dëkkuñu ci tund wi mën na nekk dañ ci am ay firnde du tund wi boo déggee ma ni tund wi mooy dëkkuñu ci commune bi ay nit lañ yuy jugee ci àll ba ñëw def si ko fi non seulement bu dee ko jigéen kooku dëkku fi jogo la dëkk ki nu wax ni moo def affaire yi boo dee xool dëkkul ci commune bi hmm. hmm. mais doomu Tiwaawan boo xam fi nga juddoo yaroo fi hmm. màgge fi nga dégg ni rey na nit mbaa def na nangam man de ba ma juddoo ba tey mosuma ko gis donc dañu war a yokk sécurité bi parce que nan ngeen njëkkee fee man dama xëy rek ah dama xëy sëriñ maa yow ñoo ànd ah, dañoo amoon benn cérémonie bu ñu amoon ca mairie ba mhm. la plupart sama téléphone bu dee sone di sonné di sonné di sonné rek am na lu xew sama téléphone di sonné jëlu ba sama téléphone di sonné benn nit ki di ma woo ba yàgg ma gis beneen numéro di ma woo di ma woo ba yàgg reportage bi ma doon def pare ma jël kenn rek mu ni ma non eh, El Hadj Mbengue xanaa yëgoo lu xew mm. ma laaj ko mu ni ma dafa am benn nit bu nu rey ci arrêt Ndiassane bi ba pare taal ko mhm. rek ma taal sama ma ñëwee ñëw ba jub leen. Mhm. police yi dàq nu quoi. Mhm. ñu taxaw foofu ñun journaliste yi ak nit ñi. Mhm. di waxtaan. ba yàgg benn booy ma gis ko muy am lu muy joxoñ ñu dem xool ko muy benn pattu daal. maa dem ba ci euh, adjudant bi ma ni ko. ma signalé ko ni ko benn pattu daal a ngi fii. adjudant bi ma gis mu wax ak ka nekk fa koor ba nekk. ma gis kooku ni ko waa si benn patu daalu droite a ngi fii mhm. te bi nekk ci biti patu droite patu gauche la mhm. ça veut ko que ni kon mhm. euh, victime bi moo soloon daal yooyu ci critères yi tax ma ni góor la damaa jàpp ni jigéen du sol ay tig ay plastique ngeen ko fekkee du yu bees tàq yu weex ba ci ñu seen ma seen benn mbubu lu mel ni genre capuchon yooyu ma wax euh, argidant bi ni ko xoolal mbubb mee mhm. mu yëkkati ko gis naa mbubb mi mu am ay deret hmm. du ma wax nag ni waajee ko soloon duma hmm. wax ni ñim doon jëflanteel ñoo ko soloon mhm. mais gis naa daal benn mbubb bu nekk fa boo xam te ni moom dafa taq deret mhm. par la suite lañu def benn interview parce que comme boobu ñun mënuñu àgg ci koor bi policiers yi dañu écarté ci lañ defal benn euh, benn interview benn paa paa bi nag moom li mu jooy mooy dafa wax ni. Mhm. dafa bëgg ñu dimbali leen ci sécurité ci côté boobu parce que. Mhm. ñoom li leen yóbbe li leen bëgg yóbbe insécurité boobu mooy da ngay gis borom doole bu ñëw jënd fa lu toll un hectare muré ko. ba mhm. pare bàyyi ko fa te loolu lam fa am dafa bari ça veut dire que ni kon diggante ñoom seen village ak biir dëkk bi. day am distance boo xam àll lay doon parce que borom doole yi jënd nañ ko ba pare muré ko. dëgg la. boobu ma lay wax bu jigéen boobu ku jigéen kooku ñu reyoon ci seen. gox boobu la amoon. Mhm. kii dellu ci. wax na ne am na benn booy boo xamante ni benn xale bu jigéen boo xam dafa tàggoo woon ni day dem bopp ngin mhm. ñu kar ko foofu. même lieu. même lieu. Mhm. téye ko deux jours doog koo bàyyi mu ñibbisi. kon foofu am na lu fa ne. mu ne ma am na keneen koo xam aussi dañ ko jàpp. jël téléphone génneel ko paaka. jël jakartaam jël xaalisam. même lieu encore même lieu fi may waxee benn waay ni ma. Mhm. toog naa fii di jaay sama boutique jékki-jékki benn xale daw dugg sama boutique yuuxu mais dañoo yeew ñaari loxo yi ci ginnaaw. Hmm? nee na ma ma ni ko noo kaay jamono wul génne ko woowaat dëkk bi laaj mu ni ko noo ay gaay ko jàpp foofu. Mhm. jël jakartaam yeew ko. Hmm. mënuñu yeewi ko paasal ko mu ni mais après bi mu gëstu xam na ni effectivement noonu la demee. parce que ci arrêt bi ñu ko jëlee woon. ñoom gëstu na ba ñoom ñu wax ko ni ko effectivement booy bi foofu la nekk. ndax mujjee ngeen a gis koor ki ba ngeen demee nan anam nan ngeen ko fekkee. non xam nga man koor bi teguma ko bët mais après xam nga booy rek am na booy yu fa njëkk. Mhm. bi ñu ma yónnee vidéo yi boo gisee man vidéo bi ma ci def. Mhm. dama fulul sax image bi parce que rafetul ci gis-gis. dëgg doomu aadama ku ko mën a def noonu. Mhm. non kenn waratulaa woowee doomu aadama mala lañ la war a woowee. Mhm. parce que doomu aadama. Mhm. nga rey ko. Mhm. taal ko mu tàkk ba jeex tàkk da ngay xam ni kii nit la nii rek ni mu tëddee nga seen bopp beeg seen yooyu. mais dañu mujj police scientifique bu mu ñëwee ba xool ko ba pare ci sur les lieux fi lañ gas suul ko fa parce que kenn mënatu ko yóbbu. ça veut dire que ni lu méttee méttee méttee méttee méttee lañ ko def. Mhm. li tax nag boo gisee sama vidéo boobu ma def ma wax ni góor la. Mhm. Jakarta man la mooy selon information yi ma am ci ñi ma ko jële mhm. mooy mujj nañoo xool ba gis kaski bi waa ji solo ça veut dire que ni Jakarta man la. ñëpp ci commentaire yi pour pourtant dañ doon wax ni eh, jigéen la. ndax peut bëggoon nañ ko violer ndax loolu amoon na fekk yu ni mel. donc kooku góor la. góor la. Hmm. góor la parce que. du ma fi nekk naan diw waxal mais ñi ma ko wax. Mhm. c' est des sources góor la effectivement. soo paree di ma wax fan ko ko jëlee yooyu la information. fi ma ko jëlee du <laughs> a <laughs> parce que fi ma ko jëlee su ma la ko waxee. ëllëgi mhm. si biir. Mhm. bu ma bëggaatee information ci kooku est ce que bu ma demee ci moom dina ma ko ñemee wax de façon du la wax dara luy deñ de façon góor la mhm. identifié ko nag xamuñu kan la mhm. xamuñu fan la dëkk boo gisee information bi sax ma bëgg mais mhm. mu ngeen ko mënee dagg ngeen jàllale ko mooy képp koo xamante ni amoon nga njaboot boo xamante ni jakarta la yoroon gisatoo ko na nga ñëw police bu Tivaouane nga déclaré ko buñ la wayee buñ la wanee casque bi mu soloon wan la dàll yi wan la mbubu mi di nga xam ba xam ci sa njaboot la wala déet dëgg la dëgg la bi ci des waa police surtout euh, commissaire Diouf dañ koy remercier bu baax a baax a baax di ko sant ci liggéey bi muy def ak mm. agent yi muy liggéey surtout adjudant bi mu fa yabaloon ak élément yi mu fa yabaloon résultat autopsie yi ñu waxoon ne dañ koy def dafa génn non non non autopsie yi mënagul a génn mais xam nga ñoom xarañ nañ xarañ gu toll ni xam nañ ni sax waaja da xeex ak ñi ko rey parce que waa ji fi mu doon xeexe fi ñu ko defee li ko defee ak fan ko yóbbu bokkul mm. dañ ko jëfe-jëf ji fii mm-hmm. xam ni mënuñu ko lakke foofu ñu yann ko jël ko ca miir ba def ko lañ koy def foofu pour mu bañ am trace allahu akbar dire que lu méttee méttee métti ko def mhm. loolu nag man mhm. même ci sama biir émission maa ngi ciy wax ni mhm. boo yore jakartaa yi ñoo war a yeewu nit mënulaa jël ni la kaay yóbbu ma di la li ci ab àll ngay nangu bu nekkee bëgg liggéey la it mais même bu fekkee da bëgg liggéey da ngay def lu leer Cees nga jóge taxa Tiwaawan nga jëm si mais jaaral ci national nationale bi mais pourquoi Tiwaawan nga jóge xam nga lan moo jaaduwul sax yow ñaari am ponkal ni la dama bëgg nga yóbbu ma benn village fii xamoo ko wala boog bala nga faa jugee ñi nga nekkal nañ la filme yaag waa ji loolu it ba ëllëgi si biir bu dara amee ñu ne ah booy bi kat bi mu fiy jugee kii moo ko fi jëlee mais yow benn waay ñëw rek ni la ñaata nga may yóbboo bi village nga ni mil mu ni noonu naa la fay 4000 yow gisatoo diggante fii fi nga jëm gisatoo gravité yi fi am yow 4000 yi rek ngay gis man am naa benn booy bu dëkk fii Tivaouane mhm. mais noonu lañ ko def benn waaye ko fekk kenkaar yi la daan liggéey mhm. ngajaga la dëkkoon mhm. bu ma saana liggéey kenkaayri ba wàcc day jël jakartaam dem wuti ci lu mu yóbbu këram mu liggéey kenkaayri ba wàcc heure yi jël jakartaam di liggéey ba ay vers 11 heures mu taxaw fii ci Carrefour bi ñaari gaab fekk ko fa ni ko sawaay ñun dañoo bëgg dem Thiès ñaata mu ni leen 5000 ñu ne ko nañ la fay 10 000 ci xale bu bëgg liggéey day yaakaar dal na ci kaañ ñu yeb ko ba ci ba ci àll ba ñu ne ko eh wàccal nga ñibbi bàyyi fi jakarta bi mu ci koo xamante ni dafa kër kër yi ba am cinq cent mille am jënd ko jakarta boo bëggee nangu alalam ci noonu bakkanam la lay jaay booy bi jaay leen bakkanam ñu jam ko ay paaka deewul sur le coup mm. mais dañ ko yanu indi ko hôpital mu dee mm. ça veut dire que ni xale yi aussi dañoo war a prudent ci ñi nii yàpp gis nga mm. même maintenant bu lax benn xale koo xam yaa ko ëpp doole jëlee fii nii la yóbbu ma te lieu na la yóbbu ci lieu bu leer parce que léegi aussi am na complot yu gars yi di def dañuy yabal benn booy ni ko demal jël jakarta mm. fexe ba jaareele ko fii rek booy bi ci gan bi la bokk ndax da a jàpp ni kon ku mu yaboon la koo euh, ko yab ba euh, koo xamante ni ay moroomam la àndaloon ñu am coow ci seen biir ndax da am certitude ni euh, moom dafa amoon ku mu yab mu yóbbu ko ba ci àll bi daal di ko def de toute façon mënuma am certitude yi ni dafa am ay moroomam yu mu àndaloon xeex mënuma am certitude yi ni par exemple dañ ko kar mais de toute façon jakarta man la boo xam dañ ko agressé rey ko taal ko yóbbu jakartaam loolu moom lu leer dañu yóbbu jakarta bi effectivement parce que d'après information ca mooy Jakarta man la. Hmm. ki ñu rey Jakarta man la. Hmm. bon. xam ne Jakarta déggoo ma ni la maanaam koo xam gis nga yéreem gis dàllam gis casque bi mu soloon. Hmm. ça veut dire que xam ne Jakarta man gis nga soxna si. sama benn waaye léegi daf maa woo ma Jakarta li mu yàq ci réew mi defaru parce que kenn mënul leen contrôler gis nga sa jakarta bu ma ko sàccoon fii nii nga toog mhm. balaa émission bee jeex ma dem ca tali ba ñëwaat mhm. mën naa la cee yàpp yóbbu la fu la neex te mënoo xamee jakarta bu ko nit sàccee bu la rombee deux mètres ñàkk nga ko mënatoo koo xàmmee mhm. ça veut dire que ni insécurité totale la indi ci réew mi donte la nag am na borom kër yoo xamante ni jakarta moo yor seen njaboot ci lañ defe seeni lépp mais ñu bon ñi dañoo yàq ñu baax ñi à travers Allo Dakar. Mhm. maa ngi ñaan ñu yokk sécurité bi nekk. Mhm. surtout ci tund woowu côté Mbodjeen côté Wele. Mhm. côté Njaasaan bi yooyu nañ ko xaw a nañ ko yokk. li ma benn waaye wax ni ma dañoo war presque chaque jour. auto police war na faa jaar. parce que bu fekkee ñëwoon nga ci coin bi affaire bi amee da ngay xam ni foofu. nit mën nañ ko fa. est-ce que kooku sax. problème bi mooy est-ce que démb bi ñu yëgee problème est-ce heure boobu lañ ko rey. parce que ki fi njëkkoon am parce que rey nañ ko ba mu 11 jours ñu koy doog a gis. parce que milieu yooyu loo xamante ni. nit day toog presque lu tolloog weer du fa jaar ndax soriwaay ba ndax ruqe bi. parce que kooku mu njëkkoon a dal bi ñu borom tool bi mu ñëwee dafa wax ni tool bi weer a ngi nii jaaruma fi. dama la dégg léegi nga ni ay plastique la sol yu weex euh, plastique yu bees. ndax it loolu euh, mënoon nañu wax ni lu yàgg lañ ko fàtt wala lu euh, nekk ci kanam maanaam lu yàggul lañ ko fàtt est-ce du peut-être ko teel a gis moom mën na mën na nekk plastique yi ma gis plastique bi ma gis mhm. du plastique bu mag bu yàgg mhm. plastique parce que li lay xamal ni plastique bi waajee ko soloon mooy benn bi mu ngi ci foofu te fi ma gis benn plastique bi da xam ni fii am na lu fi xewoon ñoom bi ñu ñëwee xam nañ ni fi mu gis plastique boobu coow li foofu la amee parce que bërti bërti ji foofu boo ko xoolee da ngay gis ni doon def ci ñax yi nga xam ni lii fii la xewee. Mm-hmm. sànq it dama la dégg nga ne ñii di amal euh, jëf ju ñaaw jooju euh, dëkkuñu ci biir Tiwaawan dañuy euh, jóge fu sori ñëw ci biir Tiwaawan amal fa lu ni mel mais Tiwaawan it nemmeeku woon nañ fii li nga xam ne xewoon na ko fi fii ci hôpital Mame Abdou Aziz ndax danga am certitude it ni ñi nga xamante ne tey eh, ñooy ñëw di amal lu ni mel dëkkuñu fi. ndax da nga ci am certitude waaw xam nga li tax ma ma ma ma ma ma wax ni loolu ñu koy def parce que parce que nag genre ñaawteef yooyu ñu ko def ñëpp jàpp nañ leen genre ñaawteef yooyu mhm. ñu ko def ñëpp la ñu jàpp mais kenn dëkku fi hmm. foofu nga basé wu waaw ci yoonu siinu xaali bii am na benn waay bu ñu fi rayoon mhm. sëriñ ñoo àndoon boobu sëriñ ñëwagul ñoo àndoon ñu dem fekk ñu rey ko ba pare jël ay mbalit teg ko ci ay xale ñooy fo ba gis ko daw bi ñu ñëwee mhm. bi police ñëwee def li ñuy def police scientifique dañoo gas foofu suul ko devant moi maa ngi taxaw mais yàggul dara ñu xam ni benn mbokk ñagam moo ko rey ba pare def ko noonu. te fii la xewee woon aussi. fii la xewe woon ci yoon wii am na beneen beneen man maa ngi fàtte yu bari ah, am na keneen ku dëkkoon kër Baba Alima. Mhm. moom it foofu lañ ko foofu lañ ko rey jam ko ay paaka ñu indi ko hôpital mu dee. bi ñu gë bi ñu jàppee ki ñu jàpp dëkku fi dëkkul ci commune bi fii la dëkk ci boor yi ngaay yi la dëkk mais boo sukkandikee ci yooyu da xam ni koy def duñ ay doomu Tiwaawan mësumaa gis doomu Tiwaawan bu nu jàpp ñu ni moo rey nit mësuma ko gis ma xaw ma ko bokk amoon na fii ci ginnaaw demoon nañ fi euh, benn drame boo xam ni euh, ka ka ka ka faat xale ya sax daanaka ci biir kër ga la dëkk benn village bi nekk fii ci ginnaaw Tiwaawan ok mooy mooy ki ñaari xale yi voilà sanc biir benn village bu nekk fii suñu ginnaaw xam nga loolu du banditisme ko boo déggee man la banditisme mooy koo mm. xam te ni maanaam da da ngay da ngay kar nit rey ko jël alalam mm. bii ngay wax du banditisme kooku mm-hmm. ci kër ga la doon sëy mm-hmm. yëg nga ko ci kër gi la doon sëy kooku leneen la du banditisme mm-hmm. kooku dafa feebar dafa feebar parce que bi ñu ko gëstoo mooy moom amul doom ay doomi jàmbur la doon rey mm-hmm. lan moo ko emporté ba muy rey ay doomi jàmbur kooku feebaru xol la am mooy maanaam amul doom mm-hmm. bëggul a gis mm-hmm. keneen ko am doom kooku dafa feebar lan nga jàpp ni moo tax ñu defee ko fii euh, gis nañ fi Thiès euh, gis nañ fi yeneen euh, dëkk yoo xamante ni daanaka li dégg temps yi fii ay wàllum rey dégguñu ko ci peut-être Thiès bi ko gën a jege lan nga jàpp ni ñoom ñoo tax ñu bëgg ñëw ba Tivaouane rek di ko fi amee. c'est parce que mooy xam nga ñun xam nga par exemple bu fekkee ne fu mel ni Dakar wala fu mel ni Thiès di nga am batmayen ci est-ce que kii mais ñun dañu xamul loolu ñun xamuñu maanaam boo yi nekk fii Tivaouane di liggéey mhm. xamuñu xamuñu maanaam soxor googu jàppuñu nii mhm. jàpp nañu nit dina ko def moo tax dañ lay wóolu boo leen waxee yóbbu ma rek dañuy jàpp ni non yow yow vous êtes dans le bonne foi quoi dañuy ni nit ku baax nga mhm. mais fan yële dañ fi xewlan ay nit ñoo xam ne du bëgg a tudd dëkk ay nit yoo xam dañuy jugee corps étranger ñëw fi sàcc ay jakarta di daw jàpp nañ ci ay booy ba hmm. ay booy dañ daan jugee Thiès. ñëw hmm. fii sàcc ay jakarta dem dellu Thiès ay nit jugee ndakaaru ñëw fii sàcc jakarta dem jugee feneen ñëw Tiwaawan sàcc fi jakarta dem comme mën na nekk su suñu ay booy yu jugee fii di dem feneen di fa sàcc jakarta mën naa nekk hmm. parce que njubadi moom fépp la am mais daal li ma la bëgg a xamal mooy doomu Tiwaawan bu fi juddoo yaroo fi màgge fi ma dégg ñu ni maanaam jam na nit paaka mbaa rey na nit ba ma mm-hmm. juddoo man ba tey mosuma ko gis mosuma ko gis sincèrement mm-hmm. information yi ñu teg ci sa loxo euh, dañ la xamal ni euh, moom moomee ñu daal di fat bakkanam góor la euh, à part loolu lan nga mën a tegaat effectivement góor la ci loolu effectivement góor la mm-hmm. xam nga pour le comme affaire bi foofu la yam ko joxe loolu lañ joxe te sax su ñuy joxe ko mooy bëgg ñu ñu ñu fësal ko pour ku am doomu góor bu yoroon jakarta te gisatoo ko nga ñëw mm-hmm. nga ñëw mm-hmm. déclaré ne gisatuma sama doom mm-hmm. loolu xëy na la ci ñi ma jox information yu jublu te nag bala maa génne information mooy ñi may ciy liggéeyal ñoo may wax ni ma non génneel information bi mais waxal nangam waxal nangam waxal nangam yam ca ci biir information bi ma koy joxee dama ni pour le moment ci loolu la xam bu ñu demee ba mu gën a leer dinaa ñëw wax leen fan laa enquête am na solo du ñu ñëw Tivaouane nit euh, ba pare euh, te du ñu wax euh, ci li nga xam ne rek mooy hôpital bi hôpital régional bi nga xam ni mooy maam Abdou Aziz nemmeeku woon nañu jëyee ji fi amoon ci ginnaaw tuuti ñun sax woon nañ fi ngir taataani xibaax loolu it ñu gis ci yeneen révélation ñi di wax ni Tiwaawan wóorutul ñeneen ñi di wax ni euh, boo duggee ci hôpital yi sax dee ngay gën a euh, jege kër dund loolu it euh, tey en tant que doomu Tiwaawan tey ana lan nga ñu ci mën a wax. non xam nga man je suis pas d' accord ci loolu nit ñi di wax. Hmm. d' accord ma ci. Ah, parce que hôpital yeyoowul di wax. Hmm. hôpital. Hmm. li muy def ci lu baax mu ëpp li muy def ci lu bon. xam nga hôpital bu ñu ko tabaxee ba pare dañu tabax morgue ci ko bi. Mhm. ça veut dire que ni mu hôpital moom dina am ñu fay dee. Mhm. parce que ki gën a jege dee hôpital lay dem. di mhm. feebar ba waa këram ñàkk ci moom yaakaar duñ ko yóbbu jàkka ja. duñ ko yóbbu église ba. duñ ko yóbbu feneen ak feneen hôpital lañ ko yóbbu. kon la plupart ñiy dee ñëpp ñi ci ëpp ci hôpitaux yi la ñuy dee. moo tax ñu tabax fa morgue. problème bi fi amoon fan yi nag. li ko yokk mooy booy bi gaañu. Mm-hmm. dafa am xale yoo xamante ni yàllaay am lu muy roof ci ñoom ba pare nëbb ko bala moo feeñ dañoo faatu mm-hmm. bi day xale bu am jom teel a jàngi métier teel koo mokkal ba pare am avenir mm-hmm. ba pare di xale bu yaatu xaritoog ñëpp booy bi mu dee la yenn xaritam yi sax di doog a xam ni ndekete booy bi du woon ñoom kese ñooy ay copain intime am quartier yëpp fenn fu ci ne booy bi am na fa ay copain intime ndekete mais man am na benn croix rouge bu ma woo maa ngi war a def moom émission sax vendredi mu woo ma ni ma élage ma ni ko ah, mu ni ma man témoin oculaire laa ci ci ci accident wu xale bi ma ni ko ah bon mu ni ma ah, mu ni ma chaque vingt heures maa ngi hôpital ba quatre heures du matin ba six heures du matin mu ni ma toppatoo bu gën a baax bi ñu daan toppatoo xale boobu mësumaa gis ñu def ko fa ñu def ko fa benn nit ah loolu nu mu nekkee. waaw kii liggéey croix rouge moom ko wax xam nga man ci ñi doon kaas laa bokk. Hmm. man ci ñi doon marche laa bokk. mais ñu tëdd na fa deux semaines perfusion lañ ko doon defal. dama ni nga ñëw tey yooyu ñañ dama la hmm. yooyu. Hmm. ci ñi ko doon wax laa bokk man. mais dama la la. témoin oculaire di croix rouge di liggéey ci hôpital ba. moo ma ko wax. ni ma ñu baari li ñuy wax xamuñu ci dara ni ma man chaque jour de vingt heures à six heures du matin maa ngi ca hôpital ba. est ce que tamit waxu la rek pour defar image am mu wax la. Euh, pour défendre non xam nga ki liggéey croix rouge mm-hmm. mm-hmm. ko. ndax jege amul koo xam ni peut-être euh, jege na ko lool di liggéey ci hôpital ba euh, mu gis ni information yaa ngi commencé di circuler mu ne xaaral ma wax la loolu en tant que porteur de voix. bu ko defee di nga mën a dem yéegee ko population bi li mu wax. Mm-hmm. gëm naa ko xamul tax ma gëm ko. Mhm. mooy docteur Maymouna mi doon mi doon mi doon opéré xale bi. Mhm. ki dàq opéré lu damm-damm ci Sénégal. Mhm. muy doomu sëñ Moussa sëñ. moo ko formé xale bi gaañu personnellement moo wax ni noo sëriñ nee na noo may docteur Maymouna moomu li ma bëgg mën na ko kenn dàq ko opéré ci Sénégal man maa ko formé. waa ji liggéey croix rouge daf ni ma booy bi bi ñu koy opéré ma ne ko ah mu ni ma deux poches de sang yin ko yin ko defal man maa ko dem jëli indil leen ko mu ni ma nag benn sikk rek la waa Tivaouane am mooy waa Tivaouane population bi bëri nañ coow mais du ñu participer ci hôpital bi parce que hôpital bi day manqué deret nee na ma keroog moom moo mujj dem kër Baaba ma ut fa 10 donneurs de sang pour ñu ñëw may hôpital bi deret bi ci des li may wax man dama ci am tama jur boobu noonu waa ji defee émission ba pare mhm. bi ñu génnee damaa dem ci bureau benn waay di waxtaan ak moom ni leen yéen benn problème rek ngeen am yéen waa hôpital bi mhm. mooy da ngeen dul communiquer ak askan wi mhm. parce que koo xamante ni par exemple man am naa ci ay ay firnde koo xamante ni par exemple opération def nga ci lu tolloog ay trois mille et quelques opérations yëpp réussir césarienne nga def ci ay cinq mille et quelques yëpp réussir hospitalisation moom ëpp na dix mille social bi nga ciy liggéey mais doo ci communiquer waa Tivaouane xamuñu ko te bon moo gën a gaaw a siiw lu baax jaadu na léeg-léegi waa hôpital génn wax ni résultat yi la hôpital bi def pour au moins ñemeloo askan wi nga xam dañuy ñëw ci hôpital bi parce que gis nga ñun ñooñ doon marche ci biir marche bi dégg naa ay booy yu doon wax naan mhm. ñu ñii di marche yépp ku ci dara dal léegi nii ci hôpital boobu nga jëm mooy hôpital bi kon nit ñi dañoo dañoo dañoo diaboliser hôpital bi ba nit ñi ragal ko hmm. mais ay nit ñu baax a nga fa ay nit ñu am yéene ay nit ñoo xam du ñu lekk du ñu naan guddeeg bëccëg subaa ngoon ñoo ngi rey seen bopp hôpital bi jëm ci kanam hmm. des fois nag bu yàlla ñëwee da ngay xam yàlla moo ñëw hmm. xale boobu am na ñu nekk ci hôpital ba ñu ko doon faj ñoo xamante nii déegi ñoom la gën a metti que ñun pour vous dire que nii ñoom dañoo lu leen naqari ci deewu xale bi te fi ma waxtaan ak ñoom xam naa ko. donc fi lay jaare wax waa Tiwaawan nañu xam ni hôpital bi ay jàmbaar a nga fa. hôpital bi du ay sëg. hôpital bi du ko fa dugg dee déedéet. yàlla moo dogal ni Abdou Hamid nit ñi dañ koo bëgg ci seen xol yi rek. mais jour boobu Abdou Hamid faatu. bi ñu duggee ñun pour pour pour pour di déconner foofu am na benn xale jakartaamaan bu wàcc ci suñu kanam. biñ koy wàcc ambulance bi la dee ci suñu kanam. kon yàlla moo ñëw. yàlla moo ñëw mais pour vous dire que ni. hôpital mhm. bi nag du ay sëkk soxna si. ay ca du ay sëkk ñu delluwaat tuuti ci diram bi euh, tey euh, yoon euh, ban assurance tey ban assurance lañ teg ci loxoy askan bi ñu ngi def liggéey bi dina gaaw du gaaw ak ñi nga xamante ne ñoo amal jëf ju ñaaw jooju yi lan moo leen di xaar loolu it bëgg naa nga dikkalaat ma ci. xam nga sànq dama laa wax ni la. Mhm. enquête bi daa am fu mu jëm. Mhm. xam nga man nag yéen journaliste yi dama leen a góom bi da ngeen koy xolli ba damm yax ba. dañoo bëgg mu gën a leer rek. non non non actuellement mënagul a leer fii la yem ah mais tamit xanaa am na lenn lu ñu wax. non actuellement nee naa la. Mhm. lii fii la affaire bi yem. góor la identifié wuñu ko xamuñu kan la. Jakarta maan la képp ku amoon sa doom te gisatoo ko na nga ñëw nga déclaré ko. Mhm. bu demee ba yeneen mën nañ ko xaarandi ci lu toll ci semaine ci weer dama bëggee ci côté boobu. nga xam nga man je suis pas un policier loolu. loolu loolu policiers yi ñoo koy xam. man teg nañ dara ci sa loxo. non non non non mais déggoo li ma la man dañ naan ma waxal lii yam ca ma wax loola yam ca pour ma bëggee leneen. Mhm. mais pour le moment daal foofu la ñu yam bis bu gënee leer dinaa dellu siwaat fii ci yow ni la noo mbir mi nii la demee ak nii ak nii ak nii mhm. mais pour le moment foofu la ñi def lu ni mel it ndax am nga loo xam ne war nga ko mën a waxat te ñoom ñu lay dégg peut-être ñu ngi ci commentaire yi peut-être ñu ngi lay suivre lan nga leen war a wan a wax ñi nga xamante ni peut-être ñoo def euh, lu ni mel. lan moo ko fi jar. Mhm. lan moo ko fi jar xale bi nga rey. xëy na yaayam moom la yaakaaroon. yàq nga tabaski yaayam bu amee doom yàq nga tabaski tabaski doomi bàyyi jàmbur bu amee mag yàq nga. tabaski magu jàmbur bu amee rakk yàq yàq nga tabaski rakku jàmbur bu amee jabar tas nga yaakaar mm-hmm. te li nga li nga di tax nga ray ko boo ko calculer yépp matul cinq cent mm-hmm. donc lan moo ko fi jar mm-hmm. est-ce que parents yi tamit amuñu ci part de responsabilité parce que boobaak léegi euh, bu matul ñaar ba ñetti fan mu koy bëgg a dépassé euh, tey am na ci koo xamante ne xëy na génn na këram euh, deux jours trois jours papaam gisu ko ay famem gisuñu ko ndax yaakaaroo nit le fait que boobu ba léegi nit taxawagul ni man kat sama doom gisaguma ko wala déggaguma ko loolu tamit parents yi amuñu ci part de responsabilité non am nañ ci part de bu mag a mag a mag xam na koo xamante ne sa doom dafa bu dee sax doo parce que am na ay booy yu yor jakarta fi yoo xamante ni seeni parents xamuñu sax ci lan la nekk. Mm-hmm. donc parce que dans les non je sais bien que ni xale bi moom génnu région bi. Mm-hmm. mën naa ni sax génnul du ma wax département bi parce que mën na génne ci région bi mën na génne Thiès. Mm-hmm. mën na dëkk Thiès mbaa mu dëkk Mbour wala mu dëkk feneen mën na nekk. mais je sais très ni génnul région bi. ça veut dire que ni naka ngay amee doom bu toll ci ci ci ci ci digg ndaawam. ak léegi léegi mu mat 4 jours. gisoo ko te coow li moom kenn du ni déggoo ko. Mhm. te ba tey kenn ñëwagul je sais pas ah depuis kenn wooguma ma bokk. Mhm. ni ma am na ko fa ñëw déclaré ni doomam dafa de parce que man bu dee gaañu woon jogo. Mhm. ba borom kër man la woowoon ni ma man kat sama sama sama sama jabar dafa réer. ma publier ko. bi bi bi bi bi bi amee ma dem def publication bi mais boobu xaw ma góor la xaw ma jigéen la. ca suba ga même pas bi woowaat ma. ni ma damaa dégg ni daa am ku nu jàpp foofu ci àll bi ba rey ko ndax góor la wala jigéen ma ne ko ah wóoruma de. daal di dem ci samay source ñu ne effectivement jigéen la ma woole nii leen jigéen la. ñu ñëw bi ñu ñëwee am na benn morceau bu desoon ci ndax ci ci ndaw si. Mhm. moom lañu gis ñu ne effectivement bi muy jógee kër gi vaccin bi la sol mhm. ci même chose it nga gis ci euh, ki nga xam ne moom la ñu faat tey boo ñu doon xaymaal euh, atam ci à travers dàll bi nga xam ne gis nga ko euh, muy plastique boobu tey ci ban intervalle nga koy dugal. wax la wuñ ma loolu de soxna si góor la jakarta man la. Mm-hmm. foofu laa yem. xaw ma paa la xaw ma xale la. parce que booy baa ngi nii sama doom a ngi nii. 17 mm-hmm. ans la gis nga ngandam tànk bi mu yor. Mm-hmm. est-ce que mën naa koo natt ci tànk bi mën naa koo natt ci tànk bi jàpp ne paa la te xamal ma mhm. di nga gis paa bu am quatre-vingt-dix ans di sol trente-deux. bi mënu cee natt âge. Mhm. de góor la de façon li tax ni jakartaamaan la mooy casque bi. Mhm. am na ñi ko wax xam naa leen. ñi ko wax ils sont très forts. ñi ko wax mosuñoo raté. bu yu mel noonu amee dañ may jël ci suuf ni ma non saa yi ma ne ko ah ma demal tëdd nelaw day feeñ. li may wax sëriñ xam na ko. kon am nañ ci yaakaar bu baax. non day feeñ. Mhm. sama ponkal mu gàtt mu ñuul mi nekk fii. ci mhm. police bii monsieur Diouf. Mhm. commissaire Diouf. <laughs> non non ku yebu di def lu jub barki alxuraanul karim da ngay feeñ par force. parce que ay booy adjudant yu garaaw la yor booy yu doy waar boo xoolee keroog ni ñu doon def da ngay xam ni ñii xam nañ seen liggéey fu ne lañ yër fu ne marqué fu police scientifique mu ñëw jël lu ne ni leen suul leen. ki ko def moom bàyyi boo mu xam ni moom bàyyi boo mu noppalu ndax day feeñ. Mhm. gisuguma mukk ci ci ci commune bi wala ci département bi ñu def fi lu garaaw. Mhm. ñu dem weer te jàppuñu la. Mhm. ki fi reyoon ñaari xale yooyu premier xale bi bi mu ko njëkkee rey. parce que xam nañ ala kulli xaal day feeñ. ni. ko def parce que xam naa ñi ma yore. lan mooy doon tàggatoo bi. sonn rek bëgg nga arrêté damaa sonn. <laughs> lan ngay nuyu lan ngay tàggatoog mbokku Sénégal gannaaw xabaar yi nga xam ne teg nga ko teg ko ci seen loxo. di la sant bu baax di la gërëm di rafetlu liggéey bi vraiment. Mhm. Euh, di wax ni rek sincèrement parler maa ngi ñaan jeunes yi nañu jub. te dem mhm. liggéey. Mhm. yàlla defal nañu sutura am nañ président wu xale. 44 ans. Mm-hmm. sama doom mën na ma seede. Mm-hmm. jamono yële ci ginnaaw dama daan wax naan mbër yu màgget yi dinañ daanu. Mm-hmm. politiciens yu màgget yi dina daanu. yaa ngi bi. sàcckat yu mag yi dañuy daanu. bi ñoo moom réew fi mu nekk nii xale xale lu mu yëngu-yëngu day am dara. mais bu fekkee nag sa yëpp na nga ko bëgg a wekk ci sàcc ak agressé yàgg yàgg da daanu. parce que banditisme moom mhm. dee mooy kaso mhm. mbaa dee mhm. mbaa àdduna bu yàqu lii mooy mu jëm gisoo fi mukk bandi bu dem ba nekk mag réussir ni mu ko bëggee kon li may conseillé sama doom yi mooy nañu bàyyi li ñuy def te xam ni banditisme jëmul kër boo rayee doomu jàmbur jël xaalis bi tant que xaalis baa nga yow nga koy lekk mu ngi neex mm. mais bu xaalis bi jeexee rek nga mm. xam ne def nga musiba mu rëy rëy rëy mm-hmm. kon nag vraiment maa leen di conseiller mm-hmm. dellu ci fas seen jom parce xam ni sama maam daf ma daan wax naa lii jëm ëllëg kii jëm ëllëg lañ koy jox dëgg la te mm-hmm. la ñu yaakaar parce que jur doom dem cinquante ans da ngay lay wóor ni léegi nga dee léegi nga gaañu man sama doom yaa ngi dama leen ko dama naan leen man léegi ma gaañu góorgóorlu leen ci bénéficier wu ci man ci am dara parce que ma tant a ngi may gis seen xel di dal mais da ngeen may ñàkk parce que man gaa ngi gisatuma nday gisatuma bàyyi. Mm-hmm. bu la fekkuloon nga préparé sa àddina fan nga jëm. kon nag vraiment mm-hmm. maa ngi leen di ñu gën a góorgóorlu. surtout nag Jakarta maan mm-hmm. il faut faire il faut prudent il faut ngeen jéem il faut aussi ngeen xam seen bopp bu leen yabati ku leen ëpp doole di jaar moom ci àll. bu leen yabati xale sax di jaar ak moom ci àll parce que vraiment li ñuy rey ci Jakarta maan bari na sincèrement parle bari na kon nag vraiment man foofu lay tëjee di ñaawlu affaire bi di wax ne sincèrement parler ñëpp tiit soxna si ñëpp tiit bis bu jot yaa ngi jàpp ni bala ngaa tëdd ñu woola ni la sa njaboot nangam kon nag vraiment maa ngi sant mbo mbokki internet yi seetaan allo Sénégal yëpp di leen ñaan aussi vraiment ngeen abonné ci allo Sénégal mhm. euh, ndax mooy télévision bu mag bi di la sant bu baax tur Ndeye Assou. Euh, yaay Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ak Serigne Abdoul Aziz Al Amine yow moom boo ñëwee Tivaouane loolu xandeer la. bu demee ci waar tukkiwul dafa ñibbi. maa kontaane bu baax a baax ci njàmbaar gi vraiment ak mm-hmm. euh, sawar gi. Mm-hmm. ci ni ngay wute information jugee Thiès. Mm-hmm. depuis presque 16h ba tey yaa ngi may woo di ma topp sama téléphone fay. nga kër kër yi ba ñëw sama kër. <laughs> loolu moom vraiment maa ngi la ci sant bu baax. Aïcha merci beaucoup euh, mbokku internet yi mu nekkoon El Hadj moom la ñu toogaloon fas yéene waxtaan ak moom ci lépp information la tukkee euh, ci drame bi nga xam ne rek nemeek woon nañ ko fii ci Tivaouane mu nekk lu metti waaye lu tiis euh, loo xam ne ñëpp rek lu nañ ko ngeen gis it information yi nga xam ne teg na ko ci seen loxo euh, lépp loo xam ne it na fii ci information yoo xam ne dinañ ko ko joxaat parce que nanguwul wax ana moo ko jox waaye nanguwul sori ci mbir mi waaye lépp luy information rek loo xam ne dina ko yoraat wala sax dina ko amaat wala dinañ ko ko waxaat dinañ leen ko rek daal di taataanal gannaaw taataan ba it dinañ leen ko indi ci biir Allô Sénégal jaa ngeen jëf